peñu ma sar juróom ñeent juróomeelu malaaka ma wol noonu ma gis ñu jox caabi kàmb gu xóot gi benn biddiw bu xawe woon asamaan daanu ci kaw suuf biddiw ba ubbi buntu kàmb gu xóot ga noonu saxar jollee ca su mel ni saxarus puur bu mag jant bi ak jawwu ji lépp lëndëm ndax saxarus kàmb ga ay njéréer génn ca saxaar sa tasaaroo ci biir àddina ñu jox leen kàttan gu mel ni kàttanu jànklaar ñu sant leen ñu bañ laal ñax mi ci kaw suuf mbaa genn gàncax walla genn meññeef waaye ñu jublu rekk ci nit ñu amul màndargaam yàlla ci seen jë sant ñu leen ñu rey leen waaye ñu mitiital leen diirub juróomi weer te mitit woowu ñuy indi temboona ak mitit wi dal nit bu ko jànkalaar fitee ca jamono yooya nit ñi dinañu sàkku dee waaye duñu daje ak moom dinañu bëgg a dee waaye dee da leen di daw njéeréer ya nag dañuy nuroo ak fas yu ñu waajal ngir xale am nañu ci seen bopp lu mel ni kaalaay wurus te seen xarkanam mel ni gunit seeni kawar mel ni yu jigéen seeni bëñ mel ni bëñi gaynde takk nañu ci seen dënn lu mel ni kiiraayu weñ te coow la seeni laaf di def mel ni coowu sareeti xare yu bari yu ñu takk fas di xeexi am nañu ay geen yu am ay fit ni jànkalaar te ca la seen kàttan nekk ngir mitital nit ñi diirub juróomi weer buuru njéréer yi mooy malaakam kàmb gu xóot gi moom lañu tudde ci làkku yawut abadon ak ci làkku grek apoleyon liy tekki yàqkat musiba mu jëkk mi jàll na yeneen ñaari musiba yaa ngi ñëw juróom benneelu malaaka ma wol liitam noonu ma dégg baat bu jóge ci ñeenti béjjén yi nekk ci koñi saraxalukaayu wurus ba nekk ci kanam yàlla mu ne juróom benneelu malaaka ma yoroon liit yiwil ñeenti malaaka ya yeewe ci efraat dex gu mag ga noonu ñu daldi yiwi ñeenti malaaka ya ñu waajaloon ngir at moomu weer woowu bés boobu ak waxtu woowu ngir ñu rey benn ci ñetti xaaju nit ñi limub gawar ga doon xare ji mat na ñaari alfuni alfuni dégg naa limba ba nii laa gise ci peeñu bi fas ya ak ñi leen war ñu sol kiiraay yu xonq ni safara bulo ni saxaar ak mboq ni tamarax boppi fas yaa nga doon niroog boppi gaynde safara saxaar ak tamarax di génn ci seeni gémmiñ benn ci ñetti xaaju nit ña dee ci ñetti musiba ya ci safara saxaar ak tamarax di génn ci seeni gémmiñ ndaxte kàttanu fas yaa ngi ci seeni gémmiñ ak ci seeni geen geen yaa nga mel ni ay jaan am ay bopp te ñoom lañuy mettitale nit ñi nit ñi rëcc ci musiba yooyu taxul sax ñu tuub seeni jëfi loxo noppiwuñu di jaamu rab yi ak nataali xërëm yi ñu defare wurus ak xaalis ak xànjar ak xeer ak dénk yoo xam ni mënuñoo gis mënuñoo dégg mbaa ñu dox te nit ñooñu tuubuñu seen boom seen xërëm seen njaaloo mbaa seen càcc